mbokku téléspectateurs yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média dal leen jàmm ci seen émission face to face dimanche bu jot ñu ci ànd ak yéen bu waxtu wi jotee tey ñu am mbégte dalal fii kilifa ci réew mi monsieur le ministre Seydou gay nekk secretaire général bu gouvernement bu Sénégal nekkit euh, kin dénk kàddu gi boobee gouvernement yore kàddu parti au pouvoir di alliance pour la république di APR monsieur le ministre ñu ngi lay jërëjëf Chérif maa ngi lay fay di nuyu sa mbokki téléspectateur di am mbégte. di ñëw di am ak yow jataay bi ndaxte bokk na ci émission yi nga xam ne neex na sénégalais yi su leen neexee ñaar ko waral euh, dinañ fiy dégg toujours li nga xam ne moom la ñu soxla pour am seen xeli bopp mais ci sa taxawaay ak sa ni nga koy defee am na yar dal na te tey na donc euh, wéyal ci loolu ñu ngi la ciy ndokkeel bu baax a baax li am njëriñ mooy ñu fexe ba sénégalais yi rek mën a xam bu baax li xew am seen xelu bopp. incha allah noonu lay demee sax wante bala ñoo tàmbali yàgg nañ laa gis ci paysage politique fii ci Sénégal ci géew géopolitique bi wax waa ngi koy wax sànq ndomba tànk gi la dénk rawatina porte parole gouvernement est ce que loolu yomb naa yor surtout yow diir bi nga ko yor gudd na trop yaa ngi bëgg a baat record bi bu ma bu ma jumul. loolu lépp euh, ndimbalu yàlla la rek ndaxte dafa nekk liggéey boo xam ne dafa metti euh, yor kàddu kuréel. dafa laaj ngay fàtte sa bopp moo tax nit ñi war nañuy mën a dégg ne saa yoo yëkkatee kàddu dangay wax ci turi nit te gouvernement nag wax ci turam dafa diis ndaxte la ngay wax moom la nit ñi jàpp muy mbokki sénégalais yi ñuy déglu te tax ñuy def muy digaale yi it muy partenaires yi parce que yow la ñu sas euh, ngay jottali li position officielle donc waxaloo sa bopp euh, kàddu nag boo ko faralee di yor euh, il faut que nga ñaan ndimbalu yàlla bu baax parce que da ngay dem ba yenn saa yi da nga ciy gis sa bopp te loolu bu la dalee rek yaa ngi commencé juum euh, te da ngay jàng it ki la dénk kàddu gi bu jógee pour wax rek yow nga fexe ba seey dootoo feeñ te xam ni nag dañ la yebal rek bu doon ci sunu mbokk lébu yi dinañu mën a jàpp différence bi. dafa am ñu yor ndombo tànk ñooñu ñu yor cër ak ñu yor ndombo baat ñu yor ndomb baat yi ñoom la ñuy yebal pour ñuy wax li nga xam ni moom la penc mi décider ni loolu la war a jébbal mu nekk gis-gisam donc dañuy ñaan yàlla mu dimbali ñu et delloo njukkal ëtt ñi nga xam ne ñëpp jaar nañ fi laata man euh, parce que ci seen taxawaay aussi lañ sukkandiku pour dox li ñuy dox jàng ci ñoom. ci li baax li nga xam ni jàpp nañ ko et puis moytu aussi li nga xam ni taxoon na nekk ay nekkoon na ay gàllankoor pour ñoom. est-ce que yomb na ci post boobu ci contexte bi ñu nekk boo xamante ni li naan fake news ay xibaar yoo xamante dëggu wala niveau de démocratie bi dem ba nga xamante ni liberté d'expression yokku na. alors kooku mooy problème bu bees bi te foog naa ni du problème mu Sénégal kese euh, bu ñu demee ci dëkk bu mel ni États-Unis ñun ñëpp suivre nañu. Euh, stratégie yooyu lan la indi ci seen campagne électorale ci yeneen réew it. daf ci am influence. dafay am influence parce que gis nga xarale yu bees yi boo ko seetloo la muy jëriñ mooy def du lien social dëkk yi nga xam ni xëy na nit ñi mën nañu bokk immeuble bokk palier seen ay bunt dend te duñu wax loolu dafay construire lien social mais ñun ni ñu koy jëriñoo. am na am anam yoo xam ni dafa mel ni dafay détruire lien sociale xarale yu bees yi muy WhatsApp muy euh, Facebook. muy réseau sociaux yi réseaux sociaux yi globalement wule médias sociaux. li tubaab yi di wax il s'exprime dans l'angle mort de la censure maanaam bu ñuy tabax seeni kàddu di ko jàllale ci ay photo di ko jàllale ci ay message amul benn structure boo xam ni mën na ko saytu balaa muy génn te bu génnee. effet viral bi mu am dafay tax ñu bare jot ci dëgg la du dëgg véhicule bi dafa am importance véhicule bi dafa am importance. ni muy jàllee. ni muy jàllee parce que ñëpp ciy jot tey jii problème bi bees bi nekk ci secteur bi mooy ku nekk dafa yor pratiquement un média. sa un mass média ci sa poche. di ko defee nu mu la neex fu la neex nga toog wax ko donc loolu mooy waral. état bi dafa war a jël matuwaayam pour yokk régulation bi. ci naka euh, régulation bi ci seet nag lañ koy utiliser ak yooyu yëpp parce que démocratie mosul tekki lu neex waay wax. démocratie boo delloo ci cosaanam dañ daan daje ci penc mi ñu ne yéen waa réew mi ku fi am xalaat bu sell bu baax bu am njëriñ ci liy doxal réew mi na nga jël kàddu nga wax ko donc loolu buñ ko bañ waruñu ko fàtte. Mm-hmm. te démocratie dafa am fonction bu importante bu ci nekk muy li ñu woowee la fonction délibération délibération la représentation ak procédure yi ñuy tànnee ñu war représenter mais délibération boobu mooy nañu waxtaan ci li nga xam ne moo am njëriñ mën na yokk jéego yi réew mi war a def pour soxla ñëpp mën a faju loolu mooy politique. mais dafa beneen principe aussi mooy maanaam wax sa xalaat lu démocratie maye est-ce que boo boo réguler walla nga censurer doo dem ba nga violer principe boobu. réguler ak censurer bokkuñu réguler mooy teg ay kenu teg ay charte pour yoonal pour mu rafet donc ça bu ñu ko bañ a fàtte touché nga beneen problème bu important ci dëkk bi dëkk bi wax sa xalaat bare na fi waaye wax sa xam-xam néew na fi. te li am njëriñ mooy ñoo xam-xam parce que mën nga xalaat dara mais xamaguloo xam-xam bi nga xam ne mooy tax mu am ceexital bu am njëriñ. muy lu am solo léegi bala ñoo dugg ci débat bi nag la comme dañu aborder li naan fake news yi danga nga jot ni dinañ peser ci présidentielle yi ñuy dëgmal fekk daanaka weer. alors bu fekkente ni dañuy wax rek te yàlla tax euh, jàpp nañ ni réew mi liñ ci gën a remarqué ci ñaar ñetti at yi weesu. mooy wax loo xam ni xëy na wérul damay jël benn tegtal bi ñu tolloo ci référendum président Macky am gis-gis référendum mars 2016 jébbal ci ay beesal mu nekk fukk ak juróomi poñ te yooyu boo ko xoolee yenn yi dafa gën a kàttanal institution yi muy assemblée nationale muy conseil constitutionnel ak yooyu mu gën leen jox dayoo yenn yi mu indi àq ak yelleef yu bees pour citoyens yi ñu koy woyee ay droits nouveaux mooy àq ak yelleef bi ñu am ci lépp luy meññeef lu jóge ci biir suuf muy may président assemblée nationale mu mën a mën a tànn ci ñu war a nekk conseil économique muy yokk dayoo assemblée nationale pour ñuy def évaluation des politiques publiques fukk ak juróom yooyu boo ko tënkee. li nga ciy remarqué par rapport ak li doon tradition bi ci ay révision constitutionnelle ci benn sumb président Macky Sall beesal na fukki poñ ak juróom te balaa muy ñëw diggante 2000 ak 2012 def nañ fi fukk ak juróomi révision constitutionnelle te amu ci benn bu yokk ak ak yelleefu sénégalais yi amu ci benn boo xam ne dafa yokk yàq ak ak yelleefu institution yi droit nouveau yooyu lan lañ ci doon wax ne dañu bëgg a daganal boroom ñaari tur wala dañu bëgg a daganal yenn xeetu sëy ci diggante ay nit du woon loolu lenn rek la woon mooy naka la sénégalais yi di amee àq ak yelleef ci wàllu pétrole. comme wax nga pétrole bi gis nañu assemblée nationale voté nañ projet de loi boobu jëm ci maanaam lay tukkee ca suuf soo soosi di pétrole wala gaz ni ñu koy séddoowee adopté nu ko conseil des ministres mercredi passé sax lu tax léegi nga président wala gouvernement bi xaar ba léegi di ko doo ko def. président dafa diggee woon. ci début deux mille dix-neuf dina jëbal assemblée nationale ñetti loi benn bi aju ci code pétrolier bi ñu war a beesal lu tax ñu war ko beesal code pétrolier bi fi nekk depuis quatre vingt dix la mu doon diir moo doon fexe ba ñi nga xam ni dañuy gëstu di seet di recherche ñëw seet nag Sénégal pétrole mën na fee am te mu nekk lu diis. donc mu nekk code bu favorable pour ñiy rechercher bi ñu rechercher ba yàlla wane ni Sénégal am na potentiel bu fi nekk ci wàllu pétrole ak gaz ñu ne donc jot na ñu gunge changement wu statut wu Sénégal nekkatul pays buy seet pétrole mais pays bu ko am la naka la ñuy fexee ba code bi nekk loo xam ni dina gën a favorable ci sénégalais yi mu am ci ay bés-bés yu mel ni ay appel d'offre ñu dugalaat ko ci ñu gën a xoolaat régime fiscal bi ak yooyu ba. exploitation bi ak revenu ci génn jëriñ sénégalais kooku nekk code pétrolier beneen bi nekk une loi boo xam ni moom la ñuy wax le contenu local seet ci li xeetu métier yi nga xam ni mu ngi ci pétrole naka la ñuy def ba sénégalais yi ak seen kàttan ni mu toll ñu mu am yoo xam ne ñoom ñoo ko moom di ko def ñu jagleel leen ko pour ñoom it ñu mun ci jëriñu am ci transfert de technologie am ci expérience ba ëllëg Sénégal mën a mën boppam du début à la fin de la filière pétrole kooku mooy la loi sur le contenu local mu am ñetteelu loi boo xam ne mu ngi tudd loi d'orientation sur la répartition des ressource tirées maanaam li pétrole bi génne ci alal naka lañ koy séddalee sénégalais yi mu am ñaari anam wala ñett yoo xam ne moom la ñett la sax benn bi lan mooy dem te lépp nag bu génnee ci budget état bi la war a dem. mais est-ce que sóoraale ngeen si génération future yi. ci lay ñëw ci lay ñëw benn bi nekk lan la ñuy jël dénk dencal ko génération future yi xam nga aussi il faut que nit ñi di xool mbiri ni ñu toppante démb bi ñu fi génnee le fonds souverain d'investissement stratégique FONSIS coow li bare woon na ñu naan fonds souverain ki ko mun am mooy comme pétrole ñu am fonds souverain yàlla indil ñu pétrole donc am na kër goo xam ni war nañ ko fa mën a def la ñuy dencal. génération future yi. ca fonds 6 lay jëm fonds wala fonds buy am ñoom ñoo xam daal ni ñu koy liggéeyee loi bi voté nañ ko àllarba bii passé conseil des ministres donc député yi dinañ ko saytu xool ko ñaareel bi mooy ci beneen xaaj bi naka lay nekkee ci budget état bi pour Sénégal mën a am alal ju mu jëfandikoo ci projet de développement bi te loolu lu mu fi defit génération future yi ñoo ko moom parce que autoroute bu ñu ko fi defee génération future yi bu ñu ko fi fekkee du ko soxla defaraat. donc lii laaj na aussi transparence ne maanaam saytu ñu bañ a. xaaral ma ñëw xaaral rek. ñetteel bi mooy donc li nga xam ne génération actuelle yi war nañ ci mën a jëriñu loolu lépp soo ko bëggee def transparence ngay def. surtout ça transparence mu ngi tàmbale ci jël mbir yu mel noonu yépp dénk ko loi bi dem ci pencum ndaw réew mi ñu voté ko saytu ko def ci proposition yoo xam ni mooy garantir transparence boobu mais Sénégal fi mu waree sant yàlla. transparence bi ñuy jéem a def ci secteur pétrolier bi dafa jiitu sax ñuy am pétrole lu tax mhm. ndaxte Sénégal dafa jël décision bu importante dem bokk ITIE ITIE loo fa génne ci petrol gaz wala leneen dañu koy publier réew yu ko seq duñu ay réew yu caaxaan ay réew yu ko fonk la Sénégal bokk ci jaar ci étape yi moo la jaar ba ren ji daaw ITIE déclarer que progrès yi Sénégal def ci wàllu transparence gouvernance secteur extractif c'est plus que satisfaisant Sénégal bokk ci ñetti réew yu nekk ci àddina yu bokk ci kuréel googu ak ñetti réew yu nekk ci àddina yu am reconnaissance boobu. mooy pays conforme mais. pays conforme moo tax beneen bi. Mhm. bi mottali transparence bi. moo di dafa am lu ñuy woowee le COS-Petrogaz. foofu laa bëggoon a ñëw ci COS-Petrogaz gouvernement bi nekk na ci. assemblée nationale nekk na ci. institution yëpp ngi ci société civile def ciy dugg. kañ société civile daf ciy dugg. que président la dernière fois posé na condition naan oui il faut gars yi noppi bu leen ci dugal. non non président waxee noonu. non parce que président de la république loolu la waxoon ne la leen il faut kooku boo nekkee kër gi ngay liggéey am na taxawaay boo xam boo ko fa mënee taxaw mënoo xaj ak nit ñi. mais leeral aussi li mu wax dëgg la société civile am na. cër ci réew mi dans notre système démocratique. wala am condition je veux dire. pour ñu intégrer ci cos pétrogaz président la république du wax naan ku noppil doo ci bokk loolu du cëram parce que président de la république mënul noppiloo kenn président la république mënul def lu ko loi mayul te warul def lu yées li ko loi sant président Macky Sall noonu la gisee taxawaayam ak digganteem ak kuréel yi ak jëmal institution yi parce que su ma la nee koo xam ni benn révision mu kàttanal institution yi. du kookooy faagaagal wala nasaxal société civile société civile dafa am place am te bi ñuy xool code pétrolier lépp luy consertation yoo xam ne société civile war na ci bokk foog naa ni jox nañ seen cër ak seen place. ñu ngi ci ñu ngi ci contexte bu xaw a tàndi gis nga coow li ni mu bëree ba dën yi jóg imaam yaa ngi woote jàmm gis nañ bi ñu saccagé fi siège waa PASTEF loolu moom yow en tant que porte gouvernement déjà acte bi noo ko analysé. mais acte saccage fu mu jógee. ak ku mu dal dañ koy ñaawlu parce que dafa dul yoon dafa dul li war a nekk ci diggante ay nit yoo xam ne ñoo bokk li ñuy def jàpp naa ni ku jóg rek Sénégal moo la tax a jóg loolu dañ koy njort foog naa ni amul kenn kuy dajale parti ni boppam a ko tax a jóg ku jóg rek danga nga bëgg defar Sénégal donc nañu yaatal nañu laabiir te nañu ñaawlu li nga xam ni rafetul mais en tant que état gouvernement est-ce que war nga ni yem rek ci condamné maanaam ñaawlu lan lan ban jéego lañ ci war a def ngir ñi ko def identifier leen jéego yi ñu ci war a def mooy jéego yi ci force de sécurité yi def parce que ci li ma liir ah bi mbir moomu amee disposition yi nga xam ni mooy topp toolu mel noonu mooy enquêtes yi investigation yi ñoom ñëpp def nañ ko def visite yi xool li ñu war a def donc di ma ne investigation yi bu ñu gaawtu bu ñu gaawtu parce que bu ñu gaawtoo dinañu jiiñ wala wax loo xam ne waruñu ko wax te jàpp naa ni démb amoon na fi euh, ci parti boobu it lu mel noonu lu ko daloon lu ko gën a yéeme sax loo xam ne kenn mënu ko nangu ab soxna suñ jël bakkenam Mariama Sagna soxna suñu jël bakkenam ñu gaawantu naan waxu politique te du woon waxu politique donc nañ leen màndu te bàyyi ñi nga xam ni mooy seen liggéey ñu def ko mais li tax nag euh, gaaw ñoom ñu wax ko gis nañ communiqué bi nga xamante ni waa PASTEF euh, jug nañ ci ñoom acharnement lañ wax maanaam singali goo xamante ni régime Macky Sall singali na ko Ousmane Sonko ak ñi mu àndal. joxe nañ ci kaw Mariama Sagna boobu. Ziguinchor aussi gis nga li may wax taqale yooyu coow li bare na trop te du mujj fen il faut ñu def attention ci li ñuy wax euh, jàpp naa ni intéressé sénégalais yi du rek ci di sos. wala di wax lu dul dëgg intéressé Sénégal yi tey jii bu fekkente ni respecté nga leen te am yéene dangay ñëw taxaw ni man nii laa mel lii laa bëgg def pour Sénégal ci nii laa mel bi ak lii laa bëgg def jàpp naa ni leader boobu ngay wax. Ousmane Sonko la tudd. taxawaayam nekk na taxawaay koo xam ni day wane ni ah man de mën naa jàpp ni may seen gën di mbindeef maanaam. parce que lu jub rek lay def ak loolu mu am loo xam ni man daf ma xaw a jaaxal ma koy laajte bu fekkente ni taxawaay boobu nga taxaw naan yaay chantre bonne gouvernance solidarité yërmande ci askan lan mooy waral nga ñëw fekk ay jërim ci benn héritage ñu am ci ay jafe-jafe sonn lool nga leen man mën naa leen xelal waaye pour ma xelal leen il ngeen fay ma douze milliards te man li ñu ma yare jàngal ma ko jërim ku ñu war a yërëm la ku ñu war a dimbali la. yaa ngi wax ci affaire titre foncier bi fi indi woon coow li affaire quatre-vingt-quatorze milliards yi bëgg nañ cee dellusiwaat mais bi ba léegi parce que tamit euh, dafa tombé contexte boo xamante ni kenn ci membre gouvernement bokk ci yéen di Mame Mbaye Niang waxoon na fi ay recruter ay gros bras et am na vidéo yu circulé sax ñu gis ay marron du feu bokkoon bokk ci yéen. Ah. Euh, déjà lii am moom moo tax ñu ñu jiiñ leen. non buñ ñu ko jiiñ parce que ñun am nañu leneen lu ñu war a wax sénégalais yi. ak lu ñu leen defal li ñu wax sénégalais yi kay euh, ci bilan président Macky Sall ñun nous préférons bu ñu demee ak sénégalais yi wax ak ñoom li ñu def ci wàllu chantier social foog naa ne yi loolu moo leen. intéressé marron du feu nag. marron du feu ay guri xale la yu tuddee seen bopp marron du feu du tey démb la ñu nekk ñoo xam ni dañ leen yar ci benn mbir kenn xeexloowu leen. kenn xulooluwu leen mais nañu aar nit ñi. aar ngeen nekk ci état. ana ana police ana gendarmerie non non il faut pas confondre. Ah, état ak parti. mais parce que au pouvoir war na recourir à des milices parti comme parti dans l'opposition tradition wu Sénégal parti boo gis am na kuréelu ay xaleem ñoo xam ne ñooy sécuriser bu ñu waxante dëgg loolu moo fi am maintenant sécurité publique bi. sénégalais bu ko itteewoo moo la war a aar te sénégalais yëpp la war a aar. ma ne est-ce que milice jaadu na ci république. non du milice. bu leen mooy dañu am ah, sens. Ah, milice ce n'est pas des milices. genre armée la àndul ak république. moo ma jaaxal. milice àndul ak république. mais ñun nii man tey jii su campagne biir Médina mais dinaa am ay xale yoo xam ne dañu ànd ak man loolu dafa am parce que man déjà samay campagne Médina toujours dafay metti mais li ñuy wax mooy réew mi dafa laaj dal. foog naa ni war nañu déglu euh, suñu imaam yi ak waa jàngu bi ci kàddu yu ñu yëkkati ñu gërëm leen ci sant leen ci parce que loolu mooy seen rôle loolu mooy seen responsabilité te bu ñu ko defee ñu ngi seen place donc dañ leen di gërëm. yéen si seen côté yan jéego ngeen def ngir jàmm jot justement kilifa diine yi muy ci jullit yi wala ci chrétien yi. Mhm. di sàkku ngeen matal ko. matal ko mooy xam ni dañu jëm ci campagne électorale présidentielle. li war état bi mooy teg boo xam ni. dinañu dem ci élection yi nga xam ne moo dëppoo ak dayoo Sénégal parce que Sénégal dafa am tradition mhm. élection yu régulière yu transparente yu démocratique mhm. donc loolu la état bi war a def te ci la ne mhm. beneen bi it mooy candidat bu war a def campagne ñu jox la matuwaay yi nga xam ni moo lay permettre nga def sa campagne am na lu la état bi ameel ci wàllu kaaraange ci wàllu kaaraange état bi dina ko wàcce ku ci ne la nga itteewul ak lañ la war a jox nga am mën nga joxe assurance bi fii ci émission bi. kooku jox jarul joxe assurance loolay tradition wu Sénégal loolu fi mos a am dina fi am beneen bi it mooy citoyen sénégalais bi bi nga xam ni moo moom nag décision bi parce que li ñuy def yëpp pour bu dimanche 24 jotee. Mhm. février mu ne man kii laa wóolu moom laa bëgg fal mu def ko dans la paix sociale def ko dans la tranquillité parce que moom moom pouvoir bi ñun ñëpp dañ ñuy sàkku pour nekk seen ndaw donc loolu la ñu ameel citoyen sénégalais et on le fera mais loolu nag pour mu mat bu ko nit ñi nangoo def ko ci anam yi nga xam ni moom lañu ko santaanee ñu def ko. Mm-hmm. loolu it da koy gunge mooy responsabilité wu état. Mm-hmm. parce que état li ko jig. mooy loi bi di àtte nit ñi te lépp lu ñu def ñu teg ko yamala ñëpp ma loolu fi li tax moom bëgg laa laaj yamala ñëpp mooy affaire euh, siège Pastef bi bu fekkente ne fu mu mën a bokk bu ñu leen identifier est-ce que aussi état bi mën na jël engagement ne dana leen tegi daan ku foo mën a bokk mais kooku jarul sax werante jarul sax werante kenn yeblewul kenn santaanewul kenn diglewul donc ku jël sa responsabilité ne yow noonu nga ko defee yoon nga koy digaaleel léegi Mame Mbaye Niang nag euh, comme wax naa ko sànq sa collègue la engagement bi mu fi ñëw ne day recruter ay gros bras pour sa sécurité yooyu. Mame sama rakk la ku am engagement la ku am Pastef la c'est un combattant du parti yàgg na taxaw di défendre le président Macky te foog naa ni nit ku am xam-xam la am xel maintenant ñun nañuy jàng it. Euh, coow li moo tax may wax sànq bi ñuy tàmbali may wax coow li nañu góorgóorlu mambay li ko itteel du xeex ak xuloo li ko itteel mooy ñun li ñu bëgg falaat le président Macky Sall dès le premier tour de façon claire te c'est à notre jarul ñuy wax loolu bëgguma ñu dugg propagande monsieur ministre. du propagande <laughs> mais ku nekk li nga yor ngay demee marché. <laughs> du dëgg wax dëgg loolu ñëwaat sax mais ba léegi euh, dañuy wax ci quand même ci réew mi ak tolluwaay gis nañ fi ay ndaw yoo xamante ni Khalifa Sall la doon jàppaleen ñu ne dañ leen di yee guddi seen kër jàppaleen yóbbu police mu mel ni Sénégal dafa delluwaat ci année soixante jamono yi yoo xamante ni démocratie amu foon man yu bare dama ci def attention dama ciy màndu parce qu'on raconte beaucoup de choses et trop de et souvent bu ñuy wax dañuy fàtte ñuy wax lan lañu def ba toll foofu xam nga yaa ngi toog fi di wax ak man alkaati ñëwu fi gendarme ñëw fii kenn jël ñu parce que li ñuy def dafa jaadu mais bu fekkente ni danga def lu jaaduwul nga yooxu mm-hmm. loolu moo ñu dal ci procès yu bare xam naa ne bu lan dinañ ci ñëwaat léegi ñu naan woy def nañu lii xalifa def nañu lii masamba def mais dañuy fàtte ñi ñooñu lan lañ def ci wax ji yëpp dañ koy fàtte te baax na it ñuy fàttali ni. mais ah est-ce que du intimidation maanaam xëbalaate. non que gis nañ fi président Kolo ca Géejawaay mu mu tëkku. mu tëkku mooy lan. Mm, bon dana opposition force restera à la loi. Ah, mais loolu du tëkku. loolu mooy wax li nga xam ne mooy rôle ak responsabilité am loolu tëkkuwul kenn. loolu tëkkuwul kenn force restera à la loi nous sommes en république et force doit rester à la loi. Mm-hmm. en tout cas am na kuréel gu naan ay candidats yu ñu lëkkale ñoom nee nañ moom maanaam xalaat mën diir baajo leen def Macky Sall du campagne. waa non xam nga démocratie dafa am lu mu laaj république dafa am loo xam ni ci boo ko deful nekkatoo ci. Euh, amul kenn sénégalais bu am dayoo ne man li conseil constitutionnel wax walla li juridiction wax sama yoon newu ci amul kenn it ku mën a taxaw ne élection du fi am donc loolu mun nañ jàpp rek ni ay wax la rek. jëlu leen koo au sérieux non koy jël au sérieux que li ñuy toppatoo moo sérieux sénégalais yi la ñuy toppatoo ak développement wu Sénégal lu sérieux la. donc lu sérieux kenn du ci boole caaxaan am na ay wax yoo xam ni pour man waxu ku saret daanu sa kaw la parce que dañ koy wax nii rek ce que j'appelle le mais loolu du luy avancer loo Sénégal mm-hmm. te li ëpp ci sénégalais yi leen itteel mooy lu avancer loo Sénégal. mais est-ce que euh, seen régime bi nekku leen def erreur tax ba opposition baa ngi nii di am unité nar a am seen biir unité boobu mbaa du leen indi li gàllankoor. jàpp naa ni opposition bu fekkente ni war nañ ko mën a analyser dinga ko gis ci ci ñetti benn grille boo xam ne mun nga ci jàpp ñett mm-hmm. bi mu tàmbalee ba léegi am na ñetti problème mooy dañu am une panne méthode. ñan opposition bi. am pannu projet kenn xamul lan lañ bëgg lan mooy seen projet pour Sénégal mm-hmm. am pannu leadership. ñetti paan yooyu daf leen yóbbu ci ñetti façon yi bañ benn bañ bi njëkk mooy refute la réalité. lan mooy réalité bi réalité bi mooy président Macky bi mu fi toogeek léegi dafa yóbbu réew mi ci ay jéego yoo xam ne sénégalais yi gisal nañ ko seen bopp làmb nañ ko daj ko te seen yéene mooy ñu tabaat ko mu mën a yeggali loolu mooy réalité bi fi nekk. mais loolu bilan matériel la mais ci wàllu démocratie. est-ce que est-ce ay avancé am na ci. avancé avancé bi gën a wóor ci démocratie sénégalaise mooy consolidation démocratique à partir du référendum de 2016 avancé démocratique yooyu xam lan la la indil tey ji kenn dootul werante ñaata mandat la ak ñaataat la par mandat ndaxte ni ñu ko defee. kenn mënatu ko laalaat. waxoon na fi day wàññi mandat bi defu ko loolu moom. dina ni mu ko waroon a defee ni mu ko waroon defee gis nga genre yu wax yooyu mooy yoo nga xam ni weesu na ñu nekkaat ci. la mu waxoon mais bilan bi la wax dañ koy fàttali rek la mu waxoon bu ma ñëwee dinaa fexe ba mandat bi kenn dootu ko laal ñu def ko ñaari mandat te sama bopp laa koy commencé daal di jébbal conseil constitutionnel nanu koy defee parce que li ñuy fàtte ba muy toog di falu comme président ci kanamu conseil constitutionnel la waat. ñooñu ñoo garantir constitution bi. ñooñu bu ñu la nee constitution bi mayu la nga def li nga bëgg a def mënoo ko def ndaxte président la république sañul def dara te tegu ko ci. mais dafa beneen tradition démocratique fii ci Sénégal rawatina wàllu processus électoral mais ñu bëri duñu jàpp ni président moom bi mu ñëwee ak yëpp da koo salfaañe maanaam consensus waxtaan. doole doole rek la jiital. président de la république bi mu jàppee nii le dialogue est consubstantiel à la démocratie et que dans notre li nit ñi bàkkoo te mu nekk dëgg te jara bàkku mooy consensus bi am ci trajectoire u Sénégal en matière d'élection ñu ni di ko daté depuis 92 ou 93 bi mu ñëwee woote na dialogue am kuréel yu nangu ak kuréel ñoo xam ne ñoo ne lànk donc moom li ko war mooy teg réew mi ci yoon ñi ñëw dialogue ci seen jaloog sax am na benn séquence boo xam ni ñoom ñëpp àndoon nañu ci li ñuy dii dinga tey muy parrainage parce que jàppoon nañ ni réew mi fi mu toll ak ni muy avancé bu ñu amul lu mel noonu xëy na dinañ dem ba organiser élection tëñu wala organisation. mais parrainage est-ce que bokkoon na ci recommandation comité bi ñu fi tegoon te gars yi bokkoon ci euh, ambassadeur Seydou Nourou ba jiite woon. bien sûr ñu bëri ne nan président foofu forcing la fa def. non deful forcing. ama xamatuma date bi mais am na PV réunion boo xam ni d'accord nañ ci parrainage bi pour élargie ko au parti politique li may wax lu wóor la. ci présidentielle yi. ci présidentielle ak tout type d'élection généraliser ko ci la ñu d'accord après nit ñi def seen liggéey parce que ñii technique techniciens yi. Mhm. dañuy def seen liggéey ñu daal di ne parrainage bi de bu ñu ko jëlee ci 1 pour cent xëy na mu tane. dina ñëpp war nañ ko mën a jekku ñu daal jàpp am benn amandement bu député yi dugal dootul nekk un pour cent mais na nekk diggante 0,8 ak 1 pour cent ñëpp dem ñu ne présidentielle jot na plus de 130 personnes manifesté wu ni dañuy jël ci dossier pour nekk candidat ñu dem vingt 27 déposé am ci juróom-ñaar yu ñu ci retenir ñeneen ñaar ñi bi ñu weesoo parenage bi ñu am cinq candidats loolu indi na fi coow sax parce que dégg naa nit ñi naan premier ministre moo wax lii. moo doon juróom waaw mooy gisaane bi kay. juróomi candidat ma bëgg ci tuuti. bi ñu demee élection législative 2017 47 listes ñoo dem état bi dépensé ci près de 13 milliards génne ci plus de 2500 tonnes de papier. ñu jiiñ leen ne am na ñoo xam ne yële leen. alors dañuy jiiñ toujours mais loolu moom amul problème. mais li ci am solo mooy boo demee élection bu ñu defee list yi ba ku nekk amay ay am dafa am lu ñuy calculer muy le quotient électoral loolu moo lay may nga am siège u député mais quotient bi ñaata la woon cinquante cinq mille cinq partis cinq listes ñoo ko amoon ci ñi nekk assemblée yëpp juróom rek ci quarante sept yooyu ñoo mataloon quotient boobu kooku booy politique bu la neexee nga ni bu ñu demee léegi ba li ñu laaj ci parrainage yem ak cinquante cinq mille pratiquement parce que ku am cinquante cinq mille yu weer da ngay jàll donc mun nga njort ni du ñu weesu juróom-benn wala juróom-ñaar parce que dafa am cislaay boo nekkee leader nekk ci dëkk bi bés bu ne ngay wax nga wër Sénégal yépp yàlla dogalul nga am lu ëpp juróomi junni ci parenage war nga seetaat sa bopp. mais dañu gis wala ñi nga bokkal parti. war nañ la seet ndax yow war ngaa des. mais parrainage boobu problème mooy doublon yi ni mu bëree gis nañ ko ne am na lu ci loi bi waxoon mais bi ñu demee gis nañ ni quand même ay milliers de milliers de d'électeurs yoo xamante ni dañuy parrainé parrainé kii moo tax problème bi ñu ne yàkkamti am na ci xaaroon xëy na yeneen élection ba expérimenté ko moo gën quand même. élection législative nekk présidentielle nekk ko bàyyi. Euh, parrainage bi lépp dañ ko teg ci machine benn biñ koy saytu ñaar képp koo xam ne da nga sa parrainage. teew nga wala sa représentant teew na ñett société civile teew na. te li ma te li ma dégg li ma dégg gum société civile nee na y a des points de progrès. dama bëggoon ñëw ci règle du jeu il faut ah. acteurs yi d'accord ci. que société civile yaa ko abordé sànq ñoom dañoo remettre en cause logiciel u conseil constitutionnel ne xamuñ ci yan base par exemple lan travailler pour. identifier ku nekk da nga am rôle ak responsabilité ku nekk da nga am rôle ak responsabilité mooy. société civile dafay ñëw pour certifier pour garantir conseil constitutionnel ci sunu réew moom lañ ko dénk en matière d' élection présidentielle parti politique yi ñu jox leen seen rôle seen responsabilité te jàpp naa ni képp koo xam ni jox nañ la ay rejet jox nañ la typologie wu rejet jox nañ la les mécanismes yu koy régler te ci loi bi nag dafa am loo xam ni mën nañ ko changer ak lu ñu mënul changer mbir mi du affaire yaa ma encore du benn faveur euh, parti au pouvoir. non parce que parti au pouvoir dafa am ay rejet ñun am nañu quatre mille et quelques rejets ci li ñu indi. mais yëmu leen rek ci yéen déposer li nga xamante ni moom mooy euh, parrainage institutionnel bi ndax bi ni investir président dégg na Aminata Touré mu yoroon pôle bi ne euh, deux deux millions de signatures lu ngeen di doyee de signatures. mais ñun dañuy liggéey dañuy politique. c'est-à-dire que parrainage bi ni ñu ko jàppee ñun bu ñu demee seeti sénégalais yi dañuy waxtaan ak ñoom ñu leen ah ñun de président Macky Sall la ñu bëgg mu nekkaat président te ñu fal ko dès le premier tour est-ce que yow président Macky jaral na la parrainage. daje nañu ba tàyyi ak ñoo xam ni da nga ñëw pour jël seen signature ñu ne la non non man du pare ne président Macky Sall ndax lii ak lii nga laal waxtaan ak ñoom. expliquer leen waxtaan ak ñoom mais ba waxtaanee ak nit ba mu nangu jox benn exemple man ndaw yu bari yi ma dajal ci parrainage bi bay wax ak ñoom dañ ma ne non ñun li tax ñuy parrain parrainel président Macky léegi gëm nañu <laughs> ni ñun jeunesse bi lay liggéeyal parce li mu fi def yëpp pour ñun. am na ñeneen ñu wax safaan wi mais loolu. est loolu day am. àddina moo bindoo noonu en tant que ñu nguur est ce jekk na loolu moo bindoo noonu rafet na ci image ñu yor ngeen ne da ngeen di. laaj jël lu ëpp li leen laaj ci ay parrainage maanaam loi bi la taxoon a jóg loi bi mais loi bi pour indi ordre la xëy na am na fu ñu ko mën a changer dégg naa kenn ko wax lu am importance nee na normalement parrainage waratuñ sax boole président la république parce que li ñuy seet nit ki pour parrainer président am na ko ba pare parce que moom jéemuñu seet ndax war naa mën a nekk président ne nekk na ko ba pare su bëggee def deuxième mandat. mu admis d'office. donc mu <laughs> mais tey ji ak ambiance bi am boo fi indi loolu gars yi ne la way dañuy rupture d'égalité ak yooyu. ba léegi Sénégal image bi ñu am ci conseil la moom rafetul ndax critique bari na trop bi ñu jëlee décision bi. waaw non mais loolu moom dafa am et puis Sénégal dafa am loo xam ni daf fi commencé bare te war nañ ko seetaat def ci attention parce que dañu dañuy xajamal deru magistrat yi ak juge yi war nañ ci bàyyi xel que il faut que nit ñi xam ni. ci turu askan wi la ñuy rendre justice. non d'abord balaa ñuy rendre turu justice ci turu askan wi. il faut que nit ñi xam ni dañu nekk ay nit ñoo xam dañ leen tàggat loolu mooy seen métier kenn gënu leen ko xam te def seen métier boobu dafa am lu mu àndal mooy code de déontologie ak éthique il faut que sénégalais yi xam ni amul benn juge buy rendre sa décision selon l'intime conviction de Seydou Gueye ou de Chérif Dia. intime conviction ak li ko loi bi teg loolu lay dox. est-ce que bàyyi nañ justice mu exercer indépendance am loolu aussi laaj la comme da nga wax kaa nag ñu jël ci ay cas seen tur sax kaa la commencé muy Khalifa ak Karim yaa ko waxoon sànq ñoom euh, exclure na leen ci élection présidentielle yi bu dee bu xalifa moom moo jaaxal ñëpp nee nañ procédure bi jeexul ñi nga wax mbiram rabat d'arrêt et cetera loolu ay critique la loolu mooy mottali rek li ma doon wax léegi ci juge ñun léegi suñu débat politique dootul politique sax c'est un débat faussement judiciaire parce que ñun ñëpp ñun ñu ci ëpp ñu ciy wax dañuy dégg mbir rek te duñu xam nañu ko bàyyi ak ñi nga xam ni seen métier la te wax ni sur la question politique ci cas yooyu mooy dañ koy remarquer ci réew yëpp ci àddina chaque fois qu'un homme politique est pris par les filets judiciaires il crie au complot au scandale ku def loo warul def ba yoon dal sa kaw parce que homme politique la rek nga ni dañ may xeex te n'est pas vrai jëf ji nga xam ni moo tax ñu tej kii walla kële ay jëf yu leer la mu jaar ci ay procédure indiw ñu mais procès équitable aussi dafa baax. Euh, ci équitable bi mu amee jiixi jaaxa ci loolu ba ñu demee ci l'affaire de la gestion financière de la ville de Dakar ba ñu demee CEDEAO ci aspect bi nga xam ni juge yu jàpp nañ ni procès bi. équitable ci côté boobu en tout cas ci procédure bi te nañuy doxalee ci justice dañ leen teg ndàmpaay lañ teg état bi 30 millions yi ñu war a seddalee juróomi nit la taxoon ñu yóbbu leen foofu 1 milliard cent la dañ ko jël ci anam yoo xam ne wute na ak lu loi bi santaane loolu buñ ko fàttee loolu mooy jëf ji. Mhm. loolu mooy fay. Euh, te fay waa ji nga xam ni moom lañ ko jiiñ mosuma dégg fu mu weddee li ma dégg mooy du man rek. mais loolu du man du man rek mais ñu bëri aussi. danaan bu àndoon ak yéen it. non euh, non li ko dal du ko dal. loolu xumbal waxtaan la rek xumbal waxtaan la beneen bi nga xam ni moo ci nekk nga wax ci wàllu procédure procédure boo demee première instance ñu jugé fait yi nga dem appel ñu jugé fait yi boo ñëwee cassation maanaam cour suprême kenn dootul xool fait yi donc mën nga jàpp ni la condamnation elle est rabat d'arrêt benn commodité la benn dispositif processuel la man aayuma ci xawma ci lu bare. parce que mais li may ci laaj rek. Mhm. laaj naa ko keroog ci seen rajo d'ailleurs benn professeur de droit bëggoon naa xam lan mooy fondement légal bi ak loolu. soo bëggee dem élection présidentielle dafa am procédure procédure bi dafa am lu ñu ciy laaj nga matal ko bokk na ci caution nga déposé bokk na ci. loolu Khalifa matal na ko li bokk na ci. Euh, parrainage bokk na ci cursus fiscal bokk na ci casier judiciaire bu vierge réew yëpp. mais li jaaxal ñëpp mooy agenda judiciaire bi ni mu àndee bu politique bi moo tax ñu ne loxo politique génnul ci li xew. xam nga ñan ñoo indi agenda judiciaire ci agenda politique ñii ñu jiiñ te boo ko ay fekkee da ngay seetlu muy ñaar ñi ngay tudd ñi ngi wax waxu candidature bi ñu leen jàppee ba yoon téye leen ci lañ wax waxu candidature. xalifa non non xalifa bi muy def tournée yi. mën ngay jëlee tournée yeeg yooyu non donc pour fàttali bu fekkee da nga bëgg rek ñu dugg ci waxtaan boobu. Euh, jàpp naa ni bu fekkente ni am ngeen seetlu te mën ngeen ko seeti euh, am na kàddu yu mer de Dakar yëkkati di annoncé nañ ko convoqué te convoqué guñu ko ci loolu la toftal ay tournée politique cest à mooy li may wax sànq rek dangay jëf sa jëf ba pare ñëw sàngoo. bàjjim politique. Mhm. pour ne dañ may ërtal dañ may fitnaal ndax loolu. léegi ñàkk na poste député Malick Guèye remplacé na ko sax ci alxemes ji fële ci assemblée nationale ba installé nañ ko ba tax na ay partisans jàpp ni acharnement bi moom mooy continuer rek ministre de la justice invoqué l' article 61 bu constitution looy tontu ñoom. non ñaar la benn bi bi jëkk mooy décret bi ko teggi ci boppu ville de Dakar. kooku code des collectivités locales moo ko wax. règlement intérieur assemblée nationale dafa am lu mu wax loolu rek lañu ñu loolu rek lañu ñu appliqué. Karim Wade aussi beneen cas comme ñoom ñaar ñoo ñoom yam même cas ñu ngi ciy joxoñ baaraamu tuuma président Macky Sall moom it. non man bi résultat yi génnee li ma njëkk wax mooy sant yàlla bi sama candidat jàllee parce que mënoon na am sama candidat du jàll. peut-être am na loo xam ne matul. bu ñu d'accord ci benn mbir ne conseil constitutionnel moom mooy gérer processus bi ba ku nekk wu ko dem jébbal ko say kayit ngelawaay boo lajee bul ko diingat. léegi élection yi nag est-ce que aussi mën nañu am garantie ne organisation bi dina jaar ci yoon wante aussi wàllu transparence aussi. mais transparence ci système électoral bu Sénégal il faut que ñu xam ni mais c'est ci fondement yi la bokk parce que suñu système. parti politique bi am na rôle ak responsabilité bu ñuy defar fichier bi di inscrire nit ñi parti politique bi dafay ñëw toog il est bu fa teewul ci sàgganteef la Sénat dina teew am pouvoir boo xam ni moo ëpp bu onel parce que mën na corriger et même substituer wu à ci yenn mbir yi bu ñu ñëwee ci bésu vote parti politique bu am candidat yaa ngi teew Sénat mi ngi teew observateur yaa ngi teew journaliste yaa ngi teew. fichier bi nag. su ñu voté ba pare bu ñuy dépouiller scrutateurs yi toogee di dépouiller yaa ngi teew yow la génn foofu ci tàng-tàng bi am nga information bi jox nga ko. mais monsieur na bi moo tax mu loolu processus bi la mais début bi wax pour ñu xam. pour ñu xam xam nga fichier bi fi ñu koy defaree fu muy tàmbale ci commission d'inscription bi ou commission de révision foofu lay tàmbalee parti politique yaa ngi fa teew société civile wóoratuma mais parti politique yaa ngi teew loolu moom xam naa ko fichier bi bare na coow trop ñaan ñetti fichier juróom benn fichier moo fi am benn fichier moo fi am coow li li koy indi mooy ña bëggoon nekk candidat dañu bëggoon jot ci fichier bi mais fichier électoral du Sénégal duñ ko jox Chérif Dia parce que dafa bëgg a nekk candidat muy wëndeelu ci biir Sénégal te du nekk candidat. carte électorale bi moom lan moo ci bees. carte électorale bi li ci bees mooy règle foog naa ni bureau électoral bureau de vote warul am lu ëpp six cent électeurs donc noonu ngay tase bureau yi ci limite boobu ci circonscription bu nekk nga xool fichier électoral bi. ci ñaata la nga réparti leen ci bureau bi parce que bureau yu bare yi l' ensemble mooy nekk carte électorale bi est-ce que ñi jotul seen carte électeur aussi euh, mën nañ koo jot balaa ñoo voté parce que li disposition bi li ci ne mooy à partir d'un certain délai carte yi dañ leen di delloo ci commission yi pour nit ñi dem jëli ko fa mën nañ ko def ba bés bi ñuy voté man commune bi ma nekk muy Médina ci li nga xam ni moom la ñu am comme stock war na mat ay 3000 et quelque te nit ñaa ngi ñëw ci commission yi di ko jël si. léegi hmm. problème Médina moom difficulté bi ci wàllu électoral euh, ba léegi am na fa. si parti au pouvoir sonn ngeen foofu de Médina. non sonn ñu seen gis-gis la ak seen jàngat parce que bu leen dégg ngeen di wax yéen dafay mel ni ñun mosuñu gagné Médina. te damay fàttali bi non te dama lay fàttali 2012 présidentielle u 2012 dès le premier tour. c'est le président Macky Sall moo gagné Médina mu dem deuxième tour doggali dem législative doggali ñu ñëw 2014. législative coalition la woon. man non mais ñun toujours coalition la ñuy demee élection. ñu ñëw 2014 l'actuel maire Bamba Fall maa ngi koy nuyu bu baax dóor ma door yu metti foog naa yéen loolu moo leen neex. <laughs> non du loolu sax mais c'est une réalité yéen Bamba daf ma dóor dóor yu neex. <laughs> ñu dem référendum ñu caw ko caw yu metti parce que moom moo taxoon gàddu nom bi ñu caw ko fa caw yu méttee métti. après il a ñu ñëw élection législative mu nekk tedd list liste. leen ñun amuñu benn investi mu caw ñu waaye ñu réduire écart bi cest que tey jii la mu ñu doon rawee ñun ak moom ñoo bokk millier bi ñu nekk mu def cent ñun ñu def 9000 donc timboo nañu mais bi yoon moom moo la gën a. xam ni mais parti bi aussi ñu toll nii moom xam na nii dóor yu métti yaay coordonné parti bi foofu may gisoon nañu fii ay ñu fi rebelle wu doon def benn communiqué sax loolu est-ce que c'est réglé maintenant. mais yooyu c'est réglé bërki dem rek am na benn groupe bu jógoon nit bëgg a wax mais politique moo ànd ak loolu ci période bii ñu toll nii di nga ko gis ku ne man dama bëgg feeñ dama bëgg lii dama bëgg bokk ni nga yore neexuma ku yor loolu daf lay dal mais yàlla na la yàlla may capacité ba nga am oyof ak màndu ba ku am lu ko naqari nga toog wax ak moom xam lan la mais yàlla nañu am capacité ñun it li ñuy def yépp ñu kuréelu ko bokk ko ci table bi toog waxtaane ko foog naa ni Medina maa ngi gërëm ñëpp d'ailleurs euh, ñu ci bare jóg nañu parce que Macky Sall moo ko jar. Mm-hmm. dinañ ci ñëwaat ci Macky Sall moom mais comme sànq junj nga fi mbiram quatre-vingt-quatorze milliards yi Sonko ji ñoon directeur des domaines di Mamour jàlloo ne da ko luubal wax quarante-six milliards yoo xamante ni xam na. banque mën ko yóbbu gis nañ benn ak euh, interview exclusive bu Mamour Diallo accordé suñu naataango l'observateur tey ne moom xamul fu xaalis bi dugg buñ ko doon résumé loolu mais ñu bëri aussi jàpp nañ ni nguur gi seetaan na foofu parce que koppar yu mel noonu buñ ko jiiñee la waroon defuñ ko. alors bu fekkente ni bés saa yu ñu jiiñee nit rek ñu jël matuwaay yëpp dem justice kërti kërti foog naa loolu rek la ñuy def bés bu ne ñu jiiñ fi nit. mais lii du lu ndaw. Euh, du lu ndaw li ma ci jàpp. mooy tàmbali gi 96 milliards la ñu wax dellu si waat wax 46 milliards lenn rek moo ci constant. 94. 94 la ñu wax après ni 46 la ma dégg ni 3 milliards la ci état bi génnee donc kooku ñi nga xam ne. dégg nañ ko xam ko ne 3 milliards la génne pour. dinañ ko leeral parce que werante la ci diggante ñaari nit kenn waxul ni xaalisu état bi la ñu génne 94 milliards lekk ko de wala 46 milliards li constant li constant. te changé wul benn yoon mooy douze milliards de commission yi ma ci dégg te ma wax ko sànq. yow loolu mais man non parce que man aussi li ma jàpp ni moom solo mooy nit ki man nga toog di ma wax sa foi sa jëf moom ma koy won Sonko man de man bu ma taxawoon yenn taxawaay yi te noonu laa taxawee dimbali néew di joole jërim. en français défendre la veuve et l'orphelin mooy suma engagement mais du ma lor veuve. mais Mamour Diallo daf ne day porter plainte après présidentielle yi mais ma ne tuuma yu mel nii. buñ ko jiiñee loolu jarul xaar. loolu li ma ci jàpp li ma ci jàpp man su may tontu damay tontu ci lu wér te li ma jaral di tontu man mooy wax buñ ma tegal firnde mais sos wax lu dul dëgg wax lu mu wóorul du ci tontu te toll naa foo xam ni ak teg naa sama bopp foo xam ni dégg naa wala di wax na taxul. mais gestion sobre et vertueuse seen slogan de campagne la woon en 2012. moo tax ñu mel nii aussi mbiram luubal buñ ko waxee. mais xel yi day laaj surtout que ñu ngi fi wax mbiram Khalifa Sall ne ak Karim Wade. ne ah. mbiram luubal moo tax ñu. jàppale yooyu yëpp ay firnde lañ teg ci table yóbbu ko ci kanamu àttekat bi donc bul gaawantu yow ci wàllu bopp. non gaawantu ma damay wax yoon fi yoon war a jaar gestion sobre et vertueuse moom lañu ñu gëm moom la fi def moom la fi def. xam nga mooy lan. gouvernance moom am ngeen ci problème. non amuñ ci benn problème bu la neexee nga gisee ko noonu mais gouvernance na nga ci amee problème bu fekkente ne yaa fi indi code de transparence budgétaire amee problème bu fekkente ni yow yaa fi indi déclaration de patrimoine gouvernance nag nga ci amee problème bu fekkente ni yaa fi teg OFNAC gouvernance nag nga ci amee problème bu fekkee ne yaa gën a kattanal. cour des comptes HGT yi bañ nañ dem. cour des comptes déclarer seen patrimoine cour des comptes xam nga boo amee lu bees soo amee lu bees. notamment ay décisions politiques euh, mu nekk loo xam ni dëppawul ak suñu tradition il faut que ñoom mandu xam ni yenn décision politique yi balaa ñuy mën a saaw ci réew mi ba ñëpp di ko doxe il faut un certain temps doom sax dañ koy ëmb juróom-ñeenti weer. Mhm. léegi nag inauguration yi si bëgg nañ jox président fi mu toll moom genre marathon la nekkee bu bu doy waan sax. Euh, nit ñi ne lan lay daw ba daanu bay daanu. non dawul dara daf fekk rek ni. am naa keroog su ma doon waxtaanal mu naan ma way président Macky Sall mi ngi campagne te ubbeegul. ma ne ko commencé na ko kay. campagneul de liggéeyam lay wane. te loolu dafa war. mais liggéey bu egg lan war a wane. non liggéey bi egg na. autoroute boo xam ne ñu ngi koy ba léegi tey. buur ba non gis nga dafa am ñaar. dafa am li ñuy inauguré. terre bi doxagul. am réception technique am essai ak lépp. yéen a ngi ci mooy. inauguration réception non inauguration inauguration mooy ñëw. daal di ne liggéey bi la ci ëpp pare na lañ ko doon maintenant loo gis muy batiment wala loo gis mu am technique laaj sécurité dafa am même ci technique da ngay am responsabilité boo jëlee assurance da ngay am lu ñuy wax la responsabilité décennale après nga am beneen contrat bu ñuy wax la garanti de parfait achèvement mën nga inaugurer te jeexagul parce que ki ko liggéey il faut que mu continuer ba jox la le parfait achèvement après nga def say réception technique def yooyu mais inauguration bi mooy liggéey bi muy jëmmal donc fi mu toll nii dafay wane li muy liggéey te loolu moo ko war. mooy campagne déguisée bi ni wax. non campagne bi bu duggee ci campagne bi leneen ngeen di gis lu wuteeg lii. lan lay lan la ñuy gis. mais campagne lay def mais fii day wane liggéey bi li ñu ko santoon te mu ne lii laa bëgg a defar Sénégal mais da koy wane. ba ci juma ay juma yooyu ba tax na sax gis nga coow yi mu fi jur. jumaa dafa am solo. te jëkkeewu ko ci jumaa wu Géejawaay parce que cité religieuse yëpp la am lu fa def soxla ko nit ñi rafetlu ko. te mu nekk guléet. Sénégal mais mën na gën a sobre. gën a sobre mooy lan inauguration yi je veux dire. ah mais nit ñi nag Chérif nit ñi bu ñu la bëggee wax gàcce ngàllama ni la jaaraama ñoom moom seen façon yi ñu koy defee munoo nit ñi ni boo leen ñëwee doo leen tàccu munoo tere nit ñi président Macky Sall di seen choix ñu am ci moom yaakaar bëgg mu toogaat ci bopp réew mi nga tere leen ñu ko ko loo ko. te am na yoo xam ne bu ñu ko toppee dafay mel ni dafa am benn espèce su police bu nekk fii bu bokkul ak police bi ñu am bu war a diriger conscience su nit ñi sànq ci tàmbali liberté nga waxoon mais aussi il ñu nangu liberté nit ñi ci ni ñuy manifesté et puis ñoom it ñu am daal boo xam ni yu xajoowul ñu bañ leen jaxase loolu rek la mën a wax nit ñi. Mhm. beneen bi aussi mooy euh, politique économique bëgg nañ ci wax xam naa mooy laaj yu mujj yi sax. Mhm. Euh, la dernière fois fi nga toog invité nañ fii un ancien premier ministre wax euh, lu doy waar ci tool waaye koom-koomu Sénégal maanaam président dafa mel ni vision économique am dafa xaw a des. kooku wax mën nañ wax ci vision président Macky Sall vision am ñëpp partagé nañ ko xam fan na nekk ci ay réalisation vision yi donc li mu gis daf ko jox jeexital donc c' est un homme qui a les idées et il donne suite à ses loolu dañ koy nangu. mais bu ñuy wax vision impact aussi ci suñu ñu dundee. impact bi foog naa ni li ñuy wax bu ñu ko doon wax li ñu def ci chantier social duñ ko mën li ñu def ci biir monde universitaire bi ci wàllu lal yu bees yu ñu defal xale yi ci wàllu effet bi ñu def ci ticket wàññi njëgu restaurant yi joxe bourse yi defar laboratoire yi ak yeneen duñ ko mun def bu ñu nekkuloon ci situation économique bu. bu tane duñu mën a jox quatre cent mille femmes bourse de sécurité familiale bu ñu amoon situation économique bu baax duñu mën a ñëw créer fi benn loi bu bees buy garantir retraite ba nga xam ni tey jii ka daan fayeku ñaari weer huit mille francs tey jii minimum trente six mille francs lay fayeku bu fekkonte ni situation économique yi ñooñu li ñu wax moo fi ne dernière revue bi am fii le quinze janvier bi nga xam ni mooy achèvement wu. initiative de soutien la politique économique bi FMI ñëw def si duñu ko conclure ni ñu ko conclure parce que félicité nañu programme bi bu ñu amuloon confort économique bi ni ñu di wax. sur le plan macroéconomique. xaaral ma ñëw après présidentielle. en cas de réélection xamul euh, Sénégal ya koy mais yu ñu bëri nee na da ngeen delluwaat ginnaaw ci affaire yu bari. dañuy ñëw. surtout courant bi li nga xam ne moo fi nekk. ñu ngi njort yokkute ci courant bi. courant bi bu ñu amuloon confort économique bi ñu am. duñ ci mun def près de cent soixante milliards de soutien pour njëkk yi bañ a yokk parce que bu ñu toppoon ni marché pétrole bi. yéeg ak wàcc campagne bi la rek loolu. non du affaire campagne kooku dafa yàgg parce que doo ñëw régler problème mu bi nga fi fekkoon mooy insuffisance de production wala système d'effectif de transport même ba kenn jot ci ba am yaay délestage nga ñëw regle loolu nit ñi di ci jot ci ni mu waree ba pare nga dolli ci. ñëw wàññi njëg gi nanga wàññee wàññi njëgu ceeb wàññi njëgu suukar wàññu njëgu gaz wàññi njëgu leneen donc loolu. foog naa ni yenn wax yi bu ñu ko déggee dafay mel ni ñooñu bëgguñu Sénégalais yi feex. d'accord beneen question ba xëy na mooy c'est la dernière mooy affaire Adama Big Togo quand même parce que gisoon nañ fi bi mu fi kii mbiram visa réciprocité yi après état bi indemnisé woon ko fi plus de dix milliards ñu ngi naan douze. bi pa aussi affaire université Amadou Mahtar boobu bi gis nañ président bi meeroon na ko en fan la ci gouvernement bi toll moom. fii ci gouvernement bi tollu xaw ma ci lu bare parce que tooguma ci kuréel boo xam ne wax nañ ko gannaaw li ma dégg. yaay porte parole bi de. mais porte parole la ngay joxe mooy li wér su ma ci xamul damay màndu ba ñu waxee waxu visa yi bañ ci waree yëkkati kàddu bu officiel dama ko génne bi nit ñi wax 10 milliards la man sax maa leen ni noonu du 10 12 la ndax li ñu digaale woon ak moom dëkk bu digaalee sécurité bi contrat yi laaj. su état bi defee leneen dafay fay nit. mais moom it lan digaale moom bu ko defut état bi. ah justement comme jaar nañu ak moom fu ñu digaale ñun defuñu li ñu déggoo woon parce que dañu diggee woon ci jiir bu ko gën a gudd la ñu bëgg ko arrêté te mu jot a investir ci loo xam ni ci patrimoine état wu Sénégal lu dugg donc dafa jot ñu am su ko yow tey jii boo digaalee woon état bi ne pàccum suuf bi yaa ko moom nga ñëw toog ci état bi digaale ak yow ne la kon nag dëkk fii ba abadan. mu ñëw tey ni la dama ko soxla mais état bi dafay ñëw indemniser la donc indemnisation ci logique boobu la li ci des mooy song nañu chantier mu am retard retard retard yoo xam ne jaaxal nit ñi ñu def ko ni ñu koy defee keneen bu fekkente ni dafa may carence rompre contrat bi rompre contrat bi seet bu amee responsabilité ñu situé leen topp leen mais dama bëgg ñu jàpp ni président Macky Sall ci mbir yooyu ñaari bu sol lam benn bi mooy na ñëpp jaar ci yoon beneen bi lépp lu muy def Sénégal na ànd ak yërmande parce que loolu la askan wi soxla. jërëjëf ñu ngi koy sant di ko gërëm kon monsieur le ministre Seydou Guèye moom mooy porte parole gouvernement bu Sénégal nekk it secrétaire général bëggoon nañu aborder yeneen question yi mais waxtu ñu xaj incha allah danañ am yeneen occasion ak moom daal ci dellusiwaat ñu ngi lay sant monsieur le ministre. jërëjëf Chérif maa ngi lay gërëm la sant di ñaanal sénégalais yëpp jàmm tey ñaanal candidat yi ñoom ñëpp ñu ànd ak wér. def seen campagne waxtaan ak sénégalais yi wax ku ci nekk lan mooy sa yéene sénégalais yi ñoo moom dogal bi ñu tànn te maa ngi leen di ñaan nit bu ñuy tànn ñu tànn ki ñu jàpp ni moo gën te ki ma jàpp ni moo gën mooy le président Macky Sall. waaw <laughs> loolu moom <laughs> ñu ngi koy sant kon di ko gërëm monsieur le ministre Seydou Guèye. merci mbokk ci yam yéen ci seen émission face to face ñu gërëm équipe technique bi ñu àndaloon yëpp Hamza Diallo ànd ci ak Pape Sylla Demba Ndaw Mamadou Dia mais aussi ci montage bi ñu ànd ci ak Moussa Sène. Euh, dimanche bi di ñëw nag incha allah mbokk yi di ngeen ci ànd ak euh, sama jigéen sama mag soxna Aïssatou Diop Fall donc c' est le grand retour de ADF euh, dans cette émission ginnaaw bi mu noppaloo moom ADF kon Aïssatou Diop Fall dina reprendre face to face ngeen ci ànd ak moom dimanche bu jot incha allah. ñu koy sant moom di ko gërëm Aïssatou Diop Fall ci confiance bi di leen sant yéen it di gërëm ci ànd bi maa koy nuyu bu baax a baax incha allah waaw moom sa jigéen la ADF <laughs> bonjour Aïssatou <laughs> dimanche incha allah kon di ngeen ci ànd ak soxna Aïssatou Diop Fall ñu ñaan jàmm ci Sénégal jërë ngeen jëf ba beneen yoon incha allah incha allah